defoon nañ ko daaw am ci am am ci résultat moo taxit ñu ñëwaat tollanteel ko pour que euh, gàmmu gi ñu dëgmal benn bakkan bañ cee rot mooy zéro accident mortel. acteur transport yi parce que ci màggal gii ñu génn nag gis presque daanaka amul benn auto transport bi nga xam ni donc euh, impliqué wu nañ ci accident mortel. accident yu am yëpp daanaka si particulier la ak si deux roues yi donc ça veut dire que message yu ñu doon lancé jëmale si acteurs yi. message yooyu jàll na même message yooyu la leen di lancé waat ñu xam ni wax dëgg yàlla responsabilité bu ñu am ci di yóbbu ay nit moo leen war a may ñu war a am benn comportement te comportement responsable boobu am nañ ko buñ ko tollantee ci gàmm gàmm gi ñu dégmal yàlla mën ñu may ñu am gàmm ak zéro accident mortel. usagers yi lu di wax mooy ñu ngi ñu ngi ci nawet mu tombeek gàmm gàmm ñëpp xam nañu ñu ngi dégmal kër diine yi rawatina Tivaouane ak euh, Kaolack gële Euh, ñu appeler leen à la prudence mooy naan maanaam ñu teey beneen bi ñu waajal seen oto balaa ñu ci wayaase ñu xoolaat frein yi xoolaat lumière yi xoolaat dispositif yi nga xam ni yëpp ci wàllum sécurité oto bi la ñu xoolaat ko bu baax jëm ci wàllu pneumatique bi parce que tali bi day tooy oto yi mën nañoo glisser nga perte contrôle jéeya am ñu moytu yenn yi nag benn bi mooy di daw di xël mooy excès de vitesse beneen bi mooy dawal di utiliser téléphone xel mënut a jàpp ñaar bu ci bi dopp mooy ngay dépasser dangereusement ñu ngi leen di appeler à la prudence et au respect scrupuleux des dispositions du code de la route